amateur lañu saa bu nit tëggee rek dañuy ñëw tey nag ñu tëgg ña mën naa ne tey ki tëgg muy Mbéyaan production mooy le président de l' association des kon tey bu tëggee mën naa wax ne amateurs yi ñoo tëgg moo tax tey nga gis ñu déplacé wu niñ koy defalee promoteur yëpp ñëw vraiment mu boole fi ay amateur boole fi ay promoteur boole fi ay nitu làmb teg ay combat yi neex aussi tamit ñu koy ñaanal journée bi yàlla defal ko réussite totale tey ku xam amateur mais lamb dafa mel dafa commencé manqué lu tuuti loo jàpp ne moo ko waral. waaw Thierno vraiment gis nañu moment bii nii li xew mu mel ni genre phénomène mooy certificat médical yi nga xam ni mën naa xam lutteurs yu mag yi ñu ngi koy commencé di def te lamb dafa am loo xamante ni dañu ko baaxee muy ne Sénégal lamb lañ am muy suñu culture mooy suñu sport national. kon tey yaakaar naa ni ñi ko jiitey nekk ca kaw muy les VIP barki dem dégg naa Mohamed Ndao Tyson di wax ne bu ñu mujjee puso bi mu réer ndax tey jii fii tey dañ ko liggéey ba mu yegg kon ñoom bu ñu mujjee puso mu réer gis nañ nag fan yi médical yi bari na trop da ngay jàpp combat dem bañ dem nañ ba un mois des wala une semaine nga gis ne dugal nañ médical loolu nag CNG bi rek moo mën a def tey jii ni li nga xamante ni mën naa wax ni moom rek moo mën a jugé ndax médical yi ci moom lay ñëw mais daal VIP yi ñu leen di wax ne lamb fu mu yegg si tey ñoom am nañ ci part responsabilité mais nag bu ñu nangu lamb yàqoo ci ñoom ndax gis nañ tey jii nii mbër yu bëri ci ñoom saa bu ñu dëgmalee combat dañuy dem bañ na combat des na un mois ñu dugal médical te loolu jëmalewul làmb kanam day dawloo tey ji li nga xam ne mooy promoteur en même temps day wàññi tey li visibilité làmb day dawloo aussi sponsor. gis nga si diggante Ama Baldé Gris Bordeaux Ama Baldé blessé woon Gris Bordeaux nekk juru xam bi Ama Baldé dugalee guérison Gris Bordeaux dugal certificat médical loolu tamit ndax na tamit euh, liy doxal làmb à 100 pour ah ci liy doxal làmb ba mën nga wax ne Ama Baldé promoteur bi ko tëgg muy Ibrahima Diop ñëpp gis nañ li ko dal ci làmb depuis que mu ñëw ci làmb léegi combat am dafay am ay jafe kon ñoom ñaari mbër yi war nañu tamit gore sauver l'honneur mooy tamit def loo xamante ni kenn foo ko woon mooy ñëw remplir seen contrat parce que laamu li tax mu doy waar mooy saa yoo xasee ba signé contrat rek ñu kon net laa fi kon nii mais gis nañ ne daal médical yi bari na te du Ama Baldé Gris Bordeaux rek gis nañ Modou Lo dugal na médical gis nañ bërki démb ki nga xam ne mooy Balla Gaye dugal na médical te loolu noonu xaaru ko ci xaaruñu ko ci ñoom surtout ñun amateurs yi nañu respecté waat amateurs yi respecté waat promoteurs yi te defaraat lamb foofu nag ñu ngi ciy parce que moom moo fi nekk ñu jël làmb ji teg ko seen loxo kon ñoom aussi nañu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne loolu lañ leen dénk mbër bu ci indi certificat médical ñu bëre loolu par force parce que bëri na gis nañ bërki démb boucher këcëb dugal na médical ñu rejeté ko mais bi nga xamante ni bëri na mbaytin junior gis nañ médical bi mu dugal ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Bolo te pourtant moom moo moom la yàlla def non non mbaytin junior ak Bolo combat jëndee production dafa dugal médical ñaari yoon CNG bi rejeté ko mais pourtant bi mu dugalaatee ñu resté ko bi mu ñëwee bëre moo daan kon moo lay wan ne médical taxul a taxul a taxul nañ ñëw remplir seen i contrat defaraat lamb lamb jëlaat beneen enveloppe. encore une fois ñu taay di ko wax lamb ji ceer nañ ko wutal directeur stade bi gis nañ projecteurs yi chaque jour benn mooy tàkk fii ñaar tàkk fii te ñun amateurs yi lépp lu ñu warloo ak promoteurs yi koy def mooy remplir suñu ay contrat mooy dagg billet ñëw jàppale promoteurs yi promoteurs yi bi li leen mën a jàppale mooy ñu fexe ba stade bi ñu teg ko ci loxo yu wóor nañu utal stade bi directeur en même temps aussi tamit ñu fexe jàppale tey mbër yi ndaw yi jàppale promoteurs yi jàppale mbër yi ba nga xamante ni tey li nga xamante ni moom la ñun amateurs yi ñu respecté ko. promoteurs yi di xaar combat bu mag ñu séntu combat mag ci diggante Gris Bordeaux Ama Baldé promoteur Ibrahima Diop jàpp ko le 1er octobre mais bu ñu déggee ci camp Gris Bordeaux ñoom nee nañ pare wuñ pour bëre li nga xam mooy 1er octobre. waaw loolu nag vraiment nekk na loo xamante lu doy waar parce que diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux gis nañ la promoteur jox nañ ko datu le 1er octobre kon tey yaakaar naa CNG bi def na li mu war a def kon foofu nag li fa des mooy waa Fass yi ñoo des nañu waxtaan seen biir rek parce yaakaar naa am nañ temps préparation boobu ba léegi combat yaakaar naa mu ngi bëgg a durer ça fait presque un an ngi nii nañ ñëw remplir contrat rek ñu xam ne lamb aussi li ñuy wax rek bëre ren ak bëre déwén yëpp benn la te ñu xool ci promoteur bi xam ne li ko waroon aussi def na ko mu ñëw ñu jàppale ko mu tëgg combat ñu gagné ci sponsor yi ñëw nañ ne combat bi mu te gis nañ ne vraiment néew na tey sponsor yoo xam ne ñu ngi ñëw di jàppale promoteurs yu mag yi ñu ñëw jàppale Ibrahima Diop yàlla dimbali ko mu sauvé mu jónnee ci ligne bi mais di félicité Kandji aussi ci ñaari combat yi nga xamante ni décroché na ko borom établissement Touba Dar Rahman vraiment duñu tàyyi ci wax ci moom Paka Thier gis na lamb ñi ciy jàppale nit ñi nañ leen di fësal gis nañ ne promoteur la mu nekkoon ci lamb tey nekkatul ci lamb mais bu mu am ko jàppale promoteurs yi kon tey bu retourné wee établissement Touba Dar taxawal combat bu mag mu dox ci diggante ñàkk jariñu ak ki nga xam ne mooy caatu yof ñu ne déedéewaay mu taxawal diggante ki nga xamante ni tey mooy fils de Balla ak Lac loolu c'est à saluer kon ñu koy ñaanal journée yooyu yàlla suñu ba defal ko si réussite totale mu am ci réussite totale vraiment di ko wax ni kanji daal ñun amateurs yi mënuñu ko fay ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm lamb laay wax sax lamb en manière générale ñëpp bég nañ ci ñoom parce que bàyyiwul kenn léegi nga ko léegi kanji social mu ku am problème Kandji taxaw la kon encore une dañuy ñaan rek yàlla suñu borom gën ko jàppale ba fi muy jëlee yàlla di ko gën a yokk ñuy waxaat encore une fois état bi na ko jàppale jox ko ay sociétés yi nga xamante ni mooy sociétés yu mag yi chantier yu mag yi ndax moom lu mu am rek ci ndaw ñi la koy delloo jërëjëf Kandji rek naa ci jërëjëf champion am ak réew mi waaw réew maa ngi ne rek di ñaan yàlla def fi jàmm di ñaanal ñëpp tawfeex rek waaw ñu ngi ci làmb ji yi képp ku ci dese journée rek yàlla defal la jàmm defal la tawfeex ba naka lamb ji ak promoteur yu ndaw yi ndax sen côté met na wala waw euh met na metul nak ku ci yenu lo antal rek man na baña a nak lamb mom comme que sponsor yu baretul da man na tamit euh li nga fi gis mom ngay gis chaque dimanche wala wa muy gaay rek wax deug yalla kon promoteur bu ci teug lamb rek na nga xol lo xamanteni euh, lu sedd la man lool la ñaan quoi ci promoteur ndaw yi parce que sponsor amul combat aussi boy léegi seen nouveau dafa cher na. kase seer na trop. ñu gis le huit bi nga fi mujjee combat bu neex ci doxoon ci diggante euh, Nandi Fall ak Papa Boy Djiné combat bu nga xamante ne bi amateur yëpp gis nañ bopp tey combat bu nga taxawal ko depuis boobu ba léegi lu gaay looy xaaral ak staff lu ñu waxtaanaat. waaw combat espoir la yu neex ren comme que def naa ñeenti journée yàlla suturaal ma tey mois de août bi xaw na sees ak nawet bi. aussi comme ni ko waxee léegi rek képp ci am làmb rek yàlla dafa la tawfeex mais vraiment déwén waaw na ma ko doon defee rek combat espoir yi neex waaw am na sas aussi comme que ETDR event si ñëw na dañ ciy taxaw rek sa yëf la yëfu yi daali la yëfu Mor Mbaay la yëfu Kanji la yëfu yéen ko moom daal dañuy ñëw jàpp ci en masse comme que deux ans yi mu ngi sponsorisé gars yi yàlla def ñoom ñu xalaat boo war a dugg ci làmb kon ku ne dañ ci def ca loxo rek waaw. bëgg naa kontaan naa jërëjëf. Idaali.